dara du dul ci dee ak suuf la fekk yi bis bi yàlla sàkk Moustapha Guèye moo leen di may seen émission les Sénégalais diaspora partout dans le monde. auzu billaahi mina sheytaani rajiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxalaa wa barakaatu bokki auditeurs yi ak bokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi nii si war saa su nekk di déglu di may nopp saa su nekk ak di siiwar ak di ñu jox seeni i soutien ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def muy émi bi yi nga xam ne ci lañ nekk di ci def ay émission yoo xam ne. dañ ciy def ay njàngat yu bari ci sunu comportement yi nga xamante ne ci moom lañuy ñuy comporté nga xam ne ci la sunu retour euh, waroon na nekk ak sunu wàllu investir yooyu ay poñ la yu bari yoo xam ne nii gis nañ ne yéen a ngi bàyyi xel saa su nekk ci jamono ju nekk ñu woo ak di ñu félicité alhamdulilah di nuyu nag mboolem sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci àddina bi fépp mu xam foofu waaye man di nekk rek. ci continent yi nga xam ne moom lañ leen di bëgg a tuddal muy continent Europe continent Afrique continent euh, Union soviétique ak continent États-Unis d'Amérique ak euh, Asie ak monde arabe nga xam ne foofu dem rek Sénégal yi ña nga fa di daan seen doole te yàgg ca lool ñu gën cee ràññee nag réew mii ñu nekk muy itali ñu ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp au passage di nuyu waa France waaye di nuyu waa Espagne waaye di nuyu waa Portugal di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy waa Suisse ak waa Suède ak waa Autriche ak waa Norvège ak ñi nga xam ne ñooy waa Angleterre ak waa Belgique ak waa Pays-Bas muy Hollande ak di nuyu tamit euh, waa Allemagne ak waa Danemark ñu ngi nuyu ñëpp ak waa Turquie di nuyu tamit monde arabe Arabie Saoudite ñi ngi leen di nuyu di nuyu waa euh, Algérie waa Éthiopie euh, waa Algérie waa Égypte dama juum waa Égypte ak waa Tunisie ak waa Maroc waa Libye waa Liban waa Iran waa Irak ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu it euh, ñi nga xam ne ñooy waa Asie di nuyu waa Japon waa Corée du Sud Corée du Nord ak ñi nga xamante ne si ñooy waa Chine ak di nuyu waa États-Unis d'Amérique waa New York ñu ngi leen di nuyu Los Angeles Californie Atlanta Columbus Austin Texas Dallas Texas Arizona Florida ak waa Las Vegas ak euh, Colorado ak Cincinnati ak Philadelphie ak Washington DC ak Alaska bi nekk ci côté Russie ak waa île de Hawaï ak waa Washington State waaye di nuyu it waa union soviétique ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak état ya fan composé yëpp euh, kon ñu dugg ci sujet bi su ko defee incha allah mun demee bay jeexal rek ñëw ci Afrique nuyu leen ñoom ñëpp xam ngeen ne ñu ngi ci soixante-dix-neuvième euh, numéro euh, mu war a tolloog nag ak waxtaan wi nga xam ne diggoon nañ leen ko démb muy ñi nga xam ne. dañoo defoon départ volontaire ñibbi Sénégal te finalement ñu mujj échec ana lan mooy seen awaniir ëllëg loola la problème dañ koo këlkenul woon ndax ab tukki boo koy def day ànd ak étude xam la la tax a jóg am vision nga visionné wu ci àddina bi yëpp xool li ciy dox soo demee ba réussir réussir nag nekkul ne ab àpp la ci alal joo xam ne danga koy am door a réussir mën ngaa tàmbalee ci lu ndaw euh, mu jur lu mag te noonu la mën a demee sax nag tàmbalee ci lu ndaw jur ci lu jur jur ci lu mag su ko defee nga ne lee ma tax a jóg damaa bëgg a ñëw soutenir sama famille damaa bëgg a ñëw am makkaan mu ma dëkk damaa war a am place bu ma liggéeyee damaa war a recruter ay emploi euh, créer emploi moo xam ci wàllu agriculture bi la moo xam ci wàllu commerce la moo xam ci wàllu entreprise la vision boobu fokk da koy am nga xam ne boo ne bërit rek looloo la lay tax a jóg boo demee ca loolu ngay nekk waaye loolu dara amu ci ñi ci bare bare bi ñu dem la leen tax a jóg rek naa dugg Europe bu njëkk sax dañ ko daan kafantoo nan ah man kay bu ma duggoon Europe rek fanaan si ñu ne ma foo eh, kañ nga ñëw eh, démb rek doy na kon ñoom mel na ne ñoom jubluwuñ ci woon a dem pour eh, yooyu ma tudd loolu nag moo indi problème bépp waaye xam ngeen ne 30 ans ko def ci am réew. wala lu ko ëpp wala lu ko moye tuuti te amuloo vision nga xam ne diir ba nga fay nekk ba am kay dong catastrophe bu ne dugg nga ci dëkk bu ne dem nga fa lu ne dugg nga ci ba yàlla dogal nga am kayit def ci alal ju dul jeex te dana wala ba dong def problème nga am sa liggéey bu baax di liggéey di fay sa salaire loola muur sa bët ba tax reserve woo ëllëg dégg nga di paas ay billets yu cher di jënd ay sëricca di dem di tëdd ay weer yu bari di woote ak jomba ñaaw eh, eh, ba tax na lu ne nga dugg ca lu ne nga nekk ca ba sa doole jeex takk nga dégg teel rek na damm na départ volontaire eh, Italie ñi ñi ngi koy def dégg na dañuy joxe lu mat trente millions ñii vingt millions ñii sax lu ko manqué ñu dégg turu millions ya ñax ñàkk xam ne millions tëb rek na ca sabax daal di gaaw joxe say kayit ite jëwoo ñan ñi nekk yor xelum gumba di lëndëmtu nekk ci lëndëm ba pare di jéem a nëbbutu ne ci lëndëm doy na waaye nëbbutu amu ci aw yoon nga xam ne ñañ dëkkal sax xamaluñ leen dara ndax dañoo bëgg dem fexe ba gañe guerre bi rek wala xeex bi daal di dem nag toog di wane ne man maa ngi woon ci nangam loolu nag andi na catastrophe yu bari te ñooñu ñoom la mbir mi gën a laal ñi nga xam ne diisoo wuñu woon xamuñu woon yoon bi ni jaar dañoo topp ay ñoo xam ne si waxi ngelaw rek la ñuy wax lu ñu wax mu day naaw dem yoonam te duñu waxe xam-xam wax yi dégg naa rek ak waxi yaakaar naa rek la ñuy wax ñu làng gi buñ déggee ci télé loo xam ne si jàpp nañ ne euh, méngoon na ak seen bëgg-bëgg rek duñ xool catégorie gañ koy waxal ak ñett ña la ko tax a jóg tubaab yi leen lëpp lépp ay étape lay doon nga tëb rek daal di informer ñooñu ñu daal di jël information boobu tawi ko dégg nga làqatu bi nëbbutante bi nga daal di xëy xëy rek daa di dem jël say kayit daal di joxe te la ma ci gën a yéem nag mooy ñi ci bari bi ñu koy def dañ ne da ngay dégg ñu ne kayit yi boo xasee def départ volontaire rek. amatoo durwaa nekk ci réew mi bu ñu la fi jàppee dañ lay tëj kaso dañ lay def nangam déedéet ndax Sénégal gañ dëkk am fa nationalité te mënuñu koo génn dañ fay def départ volontaire départ volontaire <clears throat> ñàkk xam li départ volontaire mooy dëgg dëgg ñàkk a xam am njàng mooy boo nekkoon ci barab di liggéey ñu am luñ lay dagg lañ lay dagg ñu di la ko tegal ci sa barab ndax ëllëg na nga dem ba màggat du too mën a liggéey fekk am nga taxe yoo waroon a fay bu fekkee mille francs lan lan digg yow bu fekkee mille francs lañ digg yow ne moom lañ la war a fay dañ lay dagg 400 yi weer wu dee ñu fay la 600 400 yi dañ la koy verseel ngir lan ci la ñuy ci la ñuy yor sa santé bis boo wéradee ci lañ lay faj bis boo demee ba nga xamante ni si lu mel ni lii xew xew na comme euh, mbas mi. li nga xam ne moom lañ moom lañ la ci mosal di la ko dàmpe ci lañ koy génnee li ci des day dem sa retraite nga xam ne boo demoon tey ba mënatoo liggéey loola la ñuy yëkkati di la ko fay su ko defee nag 600 francs yi lay jox ngay dem di ñibbi di yàq di yàq di yàq di yàq ba yàlla dogal na nga xëy xëy na léegi nag damay abandonné réew mi damay ñibbi bàyyi naa liggéey bàyyi naa lépp léegi nag jox leen ma léegi li ma fi am ñu yëkkati la nga xam ne moo la waroon a yóbbu retraite lépp fayandoo la lu waroon a jëm juróom fukki at boo ko doon dund ñu joxandoo la ko loola mooy départ volontaire te sam réew man nga ko faa def kon joxe ko tekkiwul ne eh, da ngaa war a daw génn réew mi mën nga fee nekk mais réew mi gëddulatu la benn sars benn sars réew bi gëddulatalu ko loolu Espagne doon nañ ko fi def ay jamono waaye nag du wax bokkut ak départ volontaire pour lii ma lay wax rek di la ko leeral ci départ volontaire soo masan renouveler say kayit sécurité sociale lañ lay laaj am na ci dëkk yooyu douze mois lañ lay laaj. ne la moom nga war a fay am ci dëkk yoo xam ne 6 mois boo ko fayee ñu renouvelé la am ci dëkk yoo xam ne si boo fayee trois mois ñu liggéeyal la ñoo ñoo ñu renouvelé la léegi nag sécurité social boobu liñ ci jublu mooy comme yow da ngay jaay nga am looy versé ci kees gi loo xam ne si moo lay mën a assuré boo feebaree ci lañ lay faj dégg nga yu baree bari bu la arrivé ci lañ lay jox léegi nag dem nañ ba finalement sax ñu ne léegi bàyyi nañ ko waaye nag. réew mi du la assuré dara looy def sa poche ngay làmb te xam nañ ne doole ji tuutaar day jeex loolu euh, mooy ni nga xam ne moo tax ñi ñu lay dagg ci li ngay liggéey léegi nag boo demee ba laaj ko dañ ko yëkkati jox la ko buñ la ko joxee nag tekkiwul na da ngaa war a daw génn réew mi ak buñ la jàppee dañ lay tëj xam nga Sénégal dafa bari ay wax yu naqari ay musiba rek la ñuy wax maanaam du wax jàmm moom da leen da leen a të ndax loolu dañ ko tàmm ba fi mu ne nii daanaka. li tax suñu bopp yi di tëju da nga yem ci daf mu informé la loo xam ne si yow doo ko doo ko dégg ci rajo doo ko dégg ci ab télé doo ko dégg ci fenn nga xam ne dangay tëb tëb rek daal di tëb tëb na ca sabax loolu gis nañ ne arrivé nañu léegi nag bu fekkante ne def nga départ volontaire bu la neexee say kayit boo ko dem di ko jox kenn da nga ko yóbbaale sam réew donte indéterminato nga yor boo ko yóbbaalee sam réew na nga dem ba jamono soppi ko bu la neexee tey boo amee ku la assuré fii man la signal contrat da nga mën a dikkaat ci kayit yooyu waaye ci kaw mu bind ay kayit bind ko autorité yi pour wane ne kii sama emploi la dama ko war a jël ndax loolu gis nga fulus yi ci wàllu boppam waaw fulus yi ci wàllu boppam gis nga ne ñoom ci wàllu boppam ñañ koy defal ca Sénégal lañu nekk te dafa am ñu leen assumer fii wane ne danañ leen jël ñu jël seeni not yónnee ko noo war a ambassade nga wut kayit ya nga war nga war a wut remplir ko ñu accompagner ko defal la visa nga dikk boo dikkee ñu jox la kayit astement ki fi nekkoon ñu xam la loolu <clears throat> ça n'a rien à voir ak bu ñu la jàppee dañ lay tëj ci kaso beeg dañ lay def nga mag yooyu mais la ma ci gën a jaaxal mooy ñàkk vision gi nga liggéey fi at yu bari xëy def départ volontaire dégg ay 20 millions ki 30 millions tax nga ne ci tabax te 20 millions 30 millions xanaa ki xamul dara rek moo ko moo ko def xaalis waaye million millions 30 boo demoon tey. téye xaalis boo xam ne si xaalisu étranger la mel ne xaalisu Angleterre wala euro euro bii nga yor ko mën ngaa dem ci benn commerçant boo xam ne si place am la yor mën na la ko wecc te poosam lay làmb rek wala euh, euh, ci coffre-fort am rek wecc la ko nga loolu du dara loolu nag nga jël ko loo mënta liggéey ci 30 nga xam ne yaa ngi dagg say bii di ñibbi foyee sa dund réservé woo dara ñu xëy jox la 20 million 30 million rek nga ne nag alhamdulillah léegi nag danaa jéem a liggéey Sénégal fekk amuloo expérience bi amuloo expérience jafe-jafe dugg na ndax expérience mënta weesu nga xam réew mi réyalité yi fi dox lenn lu lenn lu ci nekkit boo koy bala nga cee dugg dafay am tàmbali day am tàmbali waaye mbir mi mënoo tëb tëb rek dem ca bopp ba il faut nga tàmbali ci bopp bi fondation ko maanaam galleeru ko daj ci lu nekk ba xam li nga am lan la nga ban koo téye waaye bu ñu xëyee xëy na la xëcc 20 millions fekk nga dem Sénégal ñibbi. tëdd fa trois mois di ko xaar say dépasse du la xaar nga yor sab oto di dawal gaaram place bu ne nga toog fa di xalaat naan vingt millions dana ñëw trente millions dana ñëw la nga yóbbu woon jeex nga tàmbali di lépp di xaar loola loola dikk nga fay ciy bor am na ci ñun sax dof yooyu ci lañ tàmbali kër vingt millions trente millions bu ñu la ko joxee nga tàmbali ci kër door a bëgg taxaw ne damay liggéey am ci ñu ci boole takk jabar am ñoo xam ne si dañ cee dem jënd ci oto am ci ñooñ dañoo dégg secteur secteuru quincaillerie na dox na rek ñu ne dañ ciy dem dugg te la tax ñu di ci dugg mooy dañoo gis ne am na ñoo xam ne fii lañ nekkoon ay jamono bare ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu tàmbali dem installé ci wàllu quincaillerie muy dox dañ nekkoon fii nga daal di xëy xëy rek ne dama leen di toppandoo boo leen toppandoo du ngeen benn ndax ñoom galeeru nañ ko xam nañ la ca xew te quincaillerie nit ñi dañoo defe ne matériel bi nga dugal ci biir place bi di jaay la. déedéet du matériel bi de connaissance ay jaay kenkaay yére yi waaye du matériel bi ndax ñi koy def en général te yàgg ci matériel bi maanaam réservé lañ ko def ñoom pour connaissance yi ñu am di leen liggéeyloo benn ñu jox leen xaalis ne leen jaay ma bépp matériel boo xam ne si day dafay dafay dem ci bâtiment bi jaay ma ko loola bénéfice lay doon ci ñoom bu fekkee nag dañ na la nag dama bëgg nga wutal ma pàkk tabaxal ma ko te am connaissance yoo xam ne da nga mën a dem lijjanti leen pàkk ñu jël xaalis bi jox la dégg nga matériel bi nga xam ne mooy tabax kër gi ñu lay tabax loo lépp am na ci sa place yaa ko yëkkati jox leen doo dem di ko jëndi fen loolu mooy kenkaay yëri waaye gis ne ñooña ña ngay doxal rek xamoo fu nu tàmbalee xamoo fu nu jaar nga tëb tëb ne damay. wut kenkaay yéri te amaana place bañ nekk sax ñoo ko moom nga dem luye place boo xam ne si da nga ci fay ay cent mille nangam par weer ci loo xam ne si toog nga quatre mois di ko xaar dem ba naroon patiner am ay jafe-jafe weer wu dee ñu tàllal la loxo ak weer ak morom ci ni mu jegee ne la cent mille boole ko nga wut ay emploi di fay courant matériel lu kenkaay yéri dafa cher boo ca dugaloon tey soixante millions sax da nga defee ne dara nekku ci ndax matériel ba dafa cher amoo connaissance di xool ku naan la kay jaay ma nga door koo jaay lekk sa bénéfice loolu ku ko ñi ko ci def ñëpp dañoo mujj naddu dañoo mujj daanu ba finalement dañoo mujj di tuumaal sax ña la nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyloo naan dañoo sàcc sama xaalis fekk ñooña yëpp ni nga doon doxee dong lañ ngir xam ne yow mii kat maanaam yëgoo ne gaal gaa ngi riir ndax ab liggéey boo koy sumb danga koy jox gëdd waaye sumbub liggéey mel na ku ci def expérience su eh, cinquante ans loolu boo ko defee ci ñoo xam ne si gone yooyu ñoo la gën a yeewu gën la intégré wu ci réew ma dañ lay narmel loolu moom amul ma dem te ñëw dañ lay daaneel dégg nga ndax clients yi ñëw ci ñoom la ñuy jaar ñu xam ko bu ñu yeewoo nag danañ fexe ñoom ba liñ ciy am danañ mën a dem ba ubbi ci seen petit place bu ndaw bàyyee la sa xottu place dem chargé ko récupérer clients yi doon ñëw su ko defee ngay wër réew mi naan dañoo lekk sama xaalis dañoo def nangam moo tax moteur parti bi yëpp genn wàll gi fexe nañ ba defaati pexe duggaat ci réew mi biñ dikkee nag dañoo widd amatuñu kayit âgé nañ xamatuñ fuñ jëm boole kook di làqatu boole ci li ci li li di jaar ci ci ci ci ci ci tranche boobu kenn xamul ni mu toll ñenn ñi seen i kër doxe ca tas parce que amuñu expérience su liggéey départ volontaire boobu li mu suuxal ci euh, Sénégalais yi kenn xamul ni mu toll loolu nag moo tax tey ñu jël numéro boobu jëmee ko ci ñi nga xamante ne fii mooy ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon démb liggéey fii ci liggéey danger yi ay at xëy rek daal di yokkat daan na nag léegi kon naa def départ volontaire de Sénégal am ci ñoo xam ne si dañoo échec ndax dañoo nekk ay gumba yoo xam ne dañoo waroon di communiqué ak nit ñi ñu di leen dimbali waaye ne ci lëndëm ba pare di làqatu loolu musiba la léegi nag ñu ci bëree bëri ñoom tamit loolu la ba nañ dugal ak seen i kayit baaxul ñu tëdd fa juróom benn weer finalement ñu ne leen ni ngeen dugale baaxul fekk yoretuñ dërëm ñenn ñi seeni kër doxe ci tas ñenn ñi kër gañ doon làgg-làggal su néew dañ koo mujj jaayi ñenn ñi oto bañ doon yor dañ koo mujj jaayi ñenn ñi nekk ci yu kenn xamul loola ñàkk vision ak ñàkk xam-xam moo ko dugal ci ñun kon ñooñu yëpp la fa nekk ci réew ma kenn xamul ni mu lañ doon bañ lépp ca ba tukki ñu di ko nangu lañ daan bañ a dégg ba tax ñuy rey seen bopp ñu di leen ko wax ba ca gum dara kàmm te duñ ci mën dara kon loolu nekk na loo xamante ni bokk na li gën a laal tukki bi gën ñoo rey mooy ñàkk a investir au début ndax tukki moom bu la joxul expérience rek xamal na sab tukki jëriñu la dara tukki tukki kese kese kese nii dem rek war na laa jox expérience parce que li nga waroon a toog ci ay banc di ko étudier di ko jàng di ko xam kon kooku boo ko pratiquer rek euh, wax dëgg yàlla boo ci yéewuwul rek xamal na yow yàlla dala nattu nattu bu doo xam dara te danoo yàkkamti suñ àdduna gaaw bëgg ak noos lool sunu xol gaaw a fees lool sunu bët rëy ba pare tuuti bët bu rëy mooy lu ne da koy bëgg lu ne da koy xemmeem waaye bët bu tuuti bi nag mooy lu tegu sa loxo rek yow sa ëllëg fàtte nga ko da nga naan ah nangam ba loolu tax na ñi ci bëree bëri fi ne ñu ngi leen di askanale naan nañoo nangoo liggéey mais Sénégal yi ci bëri nanguwu ñoo liggéey de Sénégal yu bëri nanguwu ñoo liggéey ci ñàkk pexe rek la ñuy rayante seen bopp te li ñuy liggéey seen soxlay bopp doo nga ko tax a jóg nu ma takkee jabar nu ma amee kër nu ma takkee jabar nu ma amee kër képp waaye liggéey non non non non moo tax fi ne tey koo ci gis muy testé si di teel a yow dafa ñàkk pexe waaye tey boo amoon tey benn somme dong boo xam ne yëkkati woon nañ ko jox ko benn muy liggéey fabrique ba ñuy liggéey fayit ñu fay ko ay droit fay koy ay millions au lieu mu dem Sénégal investir ko dañ naan ah, diw dafay nañ ko nangami euro kooko di mën naa bañ a jaarati ci réew mi boo demee doo ci def dara lu am maanaa xëy di wëndeelu rek jënd sa oto di wër di sañse fu ne nga dugg fa lu ne nga dem ci ba xaalis ba jeex nga xëy nekkat katas ci catastrophe loolu gis nañ ne li ñu gën a tardeel loolu ca la bokk ndax man ngay wut wuti wu metti ngir bëgg a faj say soxla waaye jamono bu la occasion dikkalee rek nga fàtte sa ëllëg daal di defe ne tey rek a fi nekk lekk ko ba mu jeex takk loolu nit ñi nga xam ne dañ la koy lekkale di la tëwri saa su nekk ah yàlla baax na yàlla nangam nangam nangam xeeti xutba yooyu lañ lay xutba ba finalement loo fa yor danañ ko lekk ba mu jeex tàkk kon nag loolu moom na ngeen xam ne tey mooy numéro bi nga xam ne indil nañ leen ko jëmee ko ci ñi nga xam ne dañoo defoon départ volontaire ëllëg nag incha allah danañ dikkaat ci yeneen yu gën a yaatu ci li gën a indi gàllankoor gi ba nit ñi tey nekk ci guddi gu bët setul ñoo ngi nuyu waa Afrique gépp nuyu waa Sénégal ak pays voisins ya ko wër Gambie ak Mali ak euh, Mauritanie waaye di nuyu tamit ñetti Guinée yëpp Guinée Bissau ak Guinée Conakry Guinée Équatoriale ñi ngi leen di nuyu di nuyu waa Burkina Faso di nuyu waa Niger ak Nigeria ak waa Benin ak waa Mozambique ak waa Angola ak waa Zimbabwe ñi ngi nuyu waa